maaleykum salaam di wax na gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonante bi di sant suñu ñaari waajur di wax na jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Rafa ci raw la ko sëñ Mataar Mbacké. yaa di nuyu àdduna rawatina fi ma jógee Ngor Yoff Waxaam Almadi Tarawo yaa di nuyu ñëpp rawatina képp kuy bëgg si daf foo mënta nekk naa lay bëgg di la jox sa waa ci waay. nga jóge si combat ñu jëlaat combat mais combat bi nga jógee moom dafa bëri woon coow ak kër si tët bilaa bi bi ne kaay nga bëriwaat boobu. da ngay bañ a brisiwaat wala lan moo xew loo mën a wax tënk ci loolu. waaw man daanaka ba léegi kontaanu ma de. kontaanu ma ba léegi. lu tax bilaay. Hmm. Eh, que dafa li ma teree kontaan mooy xam nga rek ñu ay xale lañ. jël hmm. suñuy làmb def si suñu ay millions. waaw def si ay millions. waaw def si ay millions. waaw dafa ñu si cent franc dafa ñu si fukki dërëm ay millions lañ si def xam nga ñu ñëw suñu làmb xam nga rek du mën a arbitre di foowee ko parce que toor bi CNG laa ko mën a teg eh, parce que ñu ay ndaw lañ yee ay ndaw lañ mais ñu doon ay ndaw ndaw ndaw am na kilifa yu nekk suñu ginnaaw waaw ñun jël suñu làmb dugg fu nekk dem fu ne xam nga kon waruñu mën a ñëw xam nga nga bëgg a protéger arbitre bëgg nga bëgg a protéger arbitre warul mën a tax ngay jaay mbër quoi eh, ñu dañoo jàpp ne CNG la rek mais du arbitre quoi. daa am ay daan yu la fekk ci mbir mi wala. dara fekkuma si. sama xaalis sama réer kaa jox nañ ma ko normal. kon liggéey bi dañ koo teewuñu ko teewuñu fi ki dërëm dagguñu ma dara. kon nga xam ne mbir mi tamit am na lu si rax quoi. moo tax man la bëgg a protéger arbitre warul mën a tax ngay yàq suñu làmb quoi. Eh, man kontaanuma sama ay nit sama ay supporters kontaanuñu te buñ ñëwaatee dinañ xam ne ni ñun kontaanuñu après ñoom lu ñu def ñoom la. kontaanu ngeen nu ngeen koy wan nu ngeen ko bëgg a wane. waaw ñun buñ ñëwaatee rek dinañ wan ne ne kontaanuñu woon. si kàttanu yàlla. mais tey nga jóge foofu rek kut ko kut combat taxawaat. waaw combat taxaw samay kilifa lépp lépp samay kilifa la. yow ñoo may jël loo ma jël ñoo may bàyyi loo ma bàyyi. waaw combat taxaw na ñu ngi koy waaj ak suñuy mbokk yëpp. waaw bis bi ñu ngi koy waaj bu baax a baax a baax nag waaw ñu kay koy waaj bu baax. xam naa ko si làmb rek. waaw di ko wax ne lu mu waaj doyul. lu mu mënta waaj doyul xale bu ndaw lay bëreel moromu doomam lay bëreel. war na sëñ Tuba bor. est-ce que mat na la war na alquranul karim. ah waaw du ma ne parce que respecté naa ko quoi du ma ne bu doon béy taaloo ma mais respecté naa ko trop. war na sëriñ Tuba billaa man na ma jur barki alquran. xanaa ko de man xale laa de. war na sëriñ bi may dugg si làmb yéen ñëpp tegoon ngeen seen bët. waaw yaagul dara 2019 la woon. waaw mu def 6 combats 6 victoire nga xam ne loolu yaagul waaw ñu ngi si sant yàlla quoi kon su ma nee la moromu doomam lay bëree rek moromu doomam lay bëree te bu bës ba lépp lu fay am maa fay def si kàttanu yàlla. mais ba boo nekkee moromu doomam boo ñëwee du la jubbanti teg la ci yoon. non non ñun suñu écurie am na yëpp façon bu nekk am na fa. Hmm. am na façon yu bare. Hmm. waaw su ma ñëwee dina xam ne ne boobu laa gën a mane. mais moom ko fii tey. waaw loolu mbiru boppam la loolu am naa dañ koy laaj promoteur bi rek li ko téye yaa na nekk jàmm rek waaw. xaar ba dem si promoteur bi balaa muy ñëwaat ci yow Petit maa ngi lay ziar. Bakar maa lay fay ginnaaw loolu ban sant yooyu sant suñu ñaawaay sant ba di nuyu waa Bambey waa Ngoyale si la gën dëkk ko nga di nuyu maintenant gi nuyu waree tamit gi ñu jógee xam nga di sant waa ñëpp Sénégal àdduna di nuyu nag sama xarit PDG Omar Sow xam nga di ko ñaan yàlla suñu borom taxaw ko aar ko mu gën fu mu ne ci ñu delluwaat si njabootam di nuyu sama xarit Fallou Fall Touba gal am bu amul yaa xalaatee Abdoulaye Sarit maa ko nuyu depuis Paris la France sama xarit sama doomu yaay maa ko nuyu gis naa taxawaayam si combat si sama hmm. yi ne no lii contrat la non est-ce que bu dee contrat la bu tax lan la tegal ba tax mu ne mënta. non contrat la mais loolu may nañ ko ko xamul la parce que ñun ñëpp ci làmb la ne comme naa nga am na yoo xam ne moom comme dafa def voyage bu ndaw rek moo tax ñu may ko loolu xamul la te li amoon solo mooy Siteu bu ngoon ñëw na Boussa ñëw na Ziza ñëw na ñu Sénégal gépp xam na ne ñu ngi waaj bés bu mag bés bu am solo bés boo xam ne ñun gëm na ne bu ñu ñëwaatee lamb dina du gën a bàyyi xel mhm. ñun ci woo sponsor yëpp di ci woo sénégalais yi surtout nag suñuy kilifa suñuy mag mais Boussa Ziza ay mag ay xel lan baagar noonu ne ci lamb liggéey nañu jaay ñaanal jàpp lañu parce que lamb ji toll ay plus de vingt nanga ci lamb ne xale bu ndaw mooy amoo en sax vingt deux ans nga def loolu si lamb tey sponsor war na laa jàppale président war naa woo gaa ñëw jàpp si bu ñu déggee tamit li ma gën a métti ma koy naqlu baax bu ma déggee ay député toog ensemble national Bara Gaye li def ba ñaaw toog ensemble national di xeex di jël dóor ay jàmbur di xuloo di xeex waxuñu ci loolu ñoo di wax suñu làmb yi nga xam ñun ay xale yu ndaw lan amuñu sax ay 23 ans am na maire marché bi mu def marché bi mu defar yëmbal marché bi mu defal ñu na pare na ko defaat moo gën mu ñëw ci lamb promoteur yi bu leen tooñee day tooñ te ñun sax am na loo xam sax de am na loo xam ne non ñoo saj ñoo saj terrain yi réew mi damay wax alalu réew mi bien réew mi yëpp lañ saj di yóbbu ko seen la suñu lamb yi def teg suñu lamb du nangu benn toog benn député toog assemblée yàq suñu der moom li mu nekk ci réew mi xam nan ko comme jiital sa biir tëj ci kili yi mu seet nga ñëw loolu dafa ñaaw ngay taxaw di agsi ay doomu jàmbur li mu def dafa ñaaw may woo ñëpp Fallou Fall Touba maa ngi ko gal su 94 comprends nga Abdoulaye Sané borom France comprends nga ñun nag duy wax nga xam ñoo ñoo jàppale jeunesse a jàppale a jàppale ñu bàyyi suñu mooy ñu dem mais du nangu nag kenn toog fi ñu xas ku xas dina la xas parce ay doomu réew lañ ci réew mi dëkk fi lañ tekkee demuñu Gambie ut fa ay tàkkook lu ne lépp dëkk xam nañ ko demuñu assemblée di xeex lu mbëri ñoo woon a dem sax mbëri ñoo woon délégation dem fekk leen assemblée gën leen fa te defuñu ko non loolu dafa ñaaw dem mbëri ñoo fay dem di xeex muy député sax loolu rafetul Sénégal yëpp ñaawlu nañ ko mais c'est donc euh, damay ñëwaat si yow rek nee wax nga ko ñàkk fee nekk moo tax wala. non ñàkk fee nekk man bi may ñëw xam naa xamoon naa ne du ñëw. xamoon nga ne du ñëw xamoon naa ne du ñëw moo tax ma ne jàmbaar toog leen xaar ma ay dem ñëwaat. ndax nga xamoon ne du ñëw. waaw dama koo xam rek. dama koo xam ah, ay mbir quoi ay science. moom mun may seeraan moom ma seeraan. ah kon voyage petit li mu hmm. toog ko ñam di ma seeraan. kon ba dalaa ragal nga bëgg a am na combat du newul ragal sax su ma ragalee na tekk ngembaam parce que bëree na fee ne. bëre na fee ku ne day soog am façon bu mel ni man rek. Ah, damay wax damay wax damay bëre damay jëf damay xeex. façon bu mel ni man mu ngi koy a am rek. Ah. waaw du ma indi bëre kese du ma indi xeex kese lépp laay boole indi làmba ji ambiance lépp. Hmm. mobiliser stade bu kàttanu yàlla lépp. waaw ay xale lañ mais li ñu manqué woon xaw nañ ko am tuuti. waaw su côté mobilisation bi quoi si kàttanu yàlla. waaw mbooloo tel nga koo am moom loolu lu ko lu la ko may. waaw ma ko nit ñi kenn moomu leen nit ñi kenn mënu leen loué waaw mënoo mën nga xewle loué say siis teg sa baas mais mënoo loué kenn waaw man samay supporter lu ñuy bare ku si nekk mën naa la wax fi mu jógee wala turam wala santaam ndaxte ñu ñëpp xamante nañ suñu biir waaw bu loolu tey wax ji mënul bare sax waaw man samay supporter bu may bëreek ñoom du ma leen woo sax waaw ñoom xam nañ li ma leen jaral ñoom tamit xam nañ li ma liñ ma jaral kon loolu noonu jarul muy so quoi parce li tax mënu ma wax sama adversaire neewu fi waaw day ëpp après mën na toog ne dama fee dafay nekkul woon comprendre nga mais di ko wax nag sëy Papa am nga combat non loolu laa xam si moom ban tur Papa Dia waaw am nga combat bu rëy ba ma nga waaj waaw loolu toog si tànk yi direeku doyul lu mu toog si tànk yi direeku doyul mbaa fu mu ne am na waaye fu mu nee keeñ waaw xam nañ loolu waaw moo tax ma bëgg a làmb nangul ma war na sëñ Tuubaa dama bëgg a làmb jëm nangul ma man sama naanaan ak sama champion ak sama man bëre bëreegu ma sax parce que Sëriñ Tuubaa waneegu ma dara waaw boobaa lu muy laaj rek waaw ak samay kilifa lu ñu may digal rek mais bëreegu ma dara jël la bu ma daan damaa toog avant làmba ko bilaay mais bëreegu ma dara. mais bala ma lay wax nga tàggoo Siteu bu seex ak Balla Gaye sama grand sama père ñu bokk Saal waaw mooy conseil di ma teg si waaw anam yëpp di sant sama papa ji sama tos sama papa maa ngi koy sant bu baax a baax ji ama fayam xam nga maa ngi koy sant di ko gërëm comprendre nga maa ngi sant bu baax a baax sama papa ji di ko wax ne ama fayam di sant samay entraîneur yëpp waaw man entraîneur fu may dem entraîneur damay am coach yu may teg si yoon di sant sama entraîneur Père Ibi Diop di sant sama entraîneur As Salanzer di sant sama entraîneur Philippe benn melo Paul Maurice di sant tund ngor yow Wakaam almadi Taraawo écrit yi fa nekk yëpp waaw du leen sant bu baax a baax xala laa nekk seen biir quoi nangoo nekk ndongoli waaw ñoom ñu nekk samay kilifa kon du ma si dara waaw di wax ne Aliou Seye am nga làmb de mu lay neex mu lay naqari am nga làmb loo man def ko nag foo mën dugu dugul bar Serigne Touba kontaan waaw làmb ji am nga lamb bu rëy waaw ki afa mystique yaa na daanu ah. waaw loolu laa koy déggaat yaa na daanu parce que damaa dégg ñu ne waaw moo tax ma ne ko kii ab mystique yaa na daanu. ah du question yi dina baax non non maanaam damaa bëgg a wane sama bopp du kaara la mbër mu am mystique laa man fi ma dëkk rek waaw amaana ñaanu xale ak maire ñoo may fekk se di ma dal se ku si am secret rek ma koy jox ku si am sangoor boo jox sa néeg la ma koy jox loolu kase la mais du question kaara la dara di woo kilifa yëpp waaw di woo sama patron sama directeur bi di ko wax ne làmb ji instant bi yembees nañ si gën a nekkaat waaw liñ nekkoon ñu nekkaat si waaw di woo ñëpp mafia inco bi mafia inco borom Mbuur Joal waaw ñëpp maa leen di woo Faajum ñëpp maa leen di woo ñëpp ñëpp di ko teg si loxo inco waaw di woo mafia bi yëpp di woo waaw di maa ngi koy woo si bis bu baax waaw di woo sëñ Xaadim Touba maa ngi koy woo si bi yow di woo Saa Touba maa borom bu woo si bi comprendre nga di woo ñi may ñaanal ñëpp Alioune Ba Ousmane Ba Ahmed Ba ñëpp maa leen di woo si bis bi waaw di leen wax ne bis bi instant bi nii nañ ñu a ñaanal nañ ñu gën a waaw ñuy tàllal yi Ngor gépp chef de village fere waaw maire bi ñëpp ñu leen di tàllal loxo yi di leen wax na ñu seen doom la ay xam ga waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp waa di woo sama papa Moutala borom Touba Pono maa ngi koy woo si bis bu baax waaw di woo Kéba Kanté Tony Ndiago waaw jaago sëñ Fallou bi maa lay woo si bi di la wax ne waaw et woo tafatin bu bëri njaay loo maa lay woo si bi falaa laa jëm maa ngay gën a woowaat si bis bi tafatin maa lay woowaat si bis bi dila gën a woowaat si bis bi di ko gën a ñeexaat waaw maa lay woo si bis di ñaanal sama ñaanal sama yaay xam nga rek dafa tawat maa ngi koy ñaanal na ko yaay waaw yal na nga jugaat jàmm di ñaanal ngor joof baxaab ñëpp waaw man samay maam ñoo ma yónnee yaa xam ti ma waaw di leen wax na yal fi bët yi lu gàtt rek looy tàggoo. baax sant sama xarit Fallou Ndiaye gis naa taxawaam ci bés bi borom le 8 janvier dawal drapeau ñu def ko jigéen ñu mot jigéen Awa Baldé ñu ko ci woo baax ci bés le bés le 8 mai le parce que bés bu mag la ci làmb diggante Buldozer ak Caatu Yoff bi làmb ju mag ci làmb ñu koy ko sargal ci Awa Baldé di jigéen ju mën góor di ci Sénégal gépp le 17 tamit ñu ngi ànd ak Mour Baba suñu Zimo muy ñëw la diggante le 31 LPFS moo ñëw ñu ko ci ñaanal ndam ak tawfeex le 26 sama ji ma moo ñëw bi Modou kii xam ne diggante Albouri ak Ñambaan de loolu Albouri ak Ñambaan Jara de loolu foofu lamb fa lamb nar a yem ginnaaw sant ñëpp ku ci mel ne Omar Sow PDG Fallou Fallou Fall Touba borom amul yaa xalaate comprends nga waa PDSN waa Bambey waa Ngoy Aliou Sina comprends nga maman Katrina sama maman tam borom tampiku maa ngi koy sant koo ci ko mbaa baax Aziz borom baa jëli Tarkina baa jëli borom Colobane amul ma borom Kolobane Santhie maa ngi koy woo bu baax ci combat xam e e la jëma mm-hmm. wax ñëpp ne lamb ñaar pay-per-view la seen affiche point naa ñëpp nuyu naa ñëpp xam ay xale nañu jàppale jaajëf mbokk yi. di nuyu sama doom day Albes Albes sama xarit la. daa daa war a tàgg jaww semaine bi ñëw quoi xam nga Ablaye daal. waaw ma li ma si dolli mooy kon promoteur bi promoteur bi xale la quoi. xale la promoteur bi xale la dégg ay xale. am na sooy ñaanal réussite daal. xam nga di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant presse bi. ñii nii xam nga rek. presse waaw. lii nii dafa yombul quoi. dëgg la lii yombul. mbër du buur la ñoom ñooy buuri. xam tax ñoom ñooy buuri. waaw bu ñu xamee mbër ñoom ñoo tax. dëgg la su ñu mbër ñoom ñoo waaw ma yor sama téléphone di ko filoo image yi may am ak image yi dëgg la tax nit ñi di ma respecté nag si presse bi lay jógee. kon ñu leen di sante di leen gërëm di wax ne seen i patron seen i directeur. Mhm. waaw nañ gën a teg ñii loxo. xam na nii li ñuy def teg lañ si ay ay coono si siy daj. ñii ñuy def waaw ay waaw parfois ñu làmb seen poste di jënd matériel tax seen patron du yëg kon na lay a taxaw gën a jàpp xam di wax ne date bi benn la instant dëkk bi kenn moomu ko dëkk bi xam nga ku ko moom ku aye yaa ko moom ku aye yaa ko ku aye yaa moom dëkk bi comprendre nga dafa aye comprendre nga moom dafa war a ñëw la 31. incha allah kon moom moom dëkk bi waaw la la war si bëri doomu jaamu la. kon LB moom moom dëkk bi moo aaye. am na solo waaw dal la. jaajëf Pogba. waaw waaw diggante Albouri. Mm-hmm. ak Jara kon moom tamit bu LB ñëwee moo soobaat. am na solo dañ àndandoo di dóorandoo di xaacandoo di defandoo lépp. noonu lay demee dëkk bi kon gars yi yéen a ko gis noonu Lamine moo présenté léegi ki nga xam ne moom mooy euh, Ketchup ak ki nga xam ne moom mooy Ziza ki nga xam ne moom mooy bu Ngor ak Alioune Seye Senior Alioune Seye nag ñëwul waaye bisu làmb ja moom ak lu mën a xew rek ñoom ñaar danañu wàcc ci géew bi jàkkaarloo bëre kon gaa yi ba beneen yoon incha allah rabbi